depuis si suba ba tey ñoo ngi fi mais ba tey amuñu nu ñuy jëlee récupérer xaalis daal. situation bi yàgg nañ yàgg nañ di ko dund chaque fois chaque année dañ koy dund chaque année dañ koy dund te en même temps tamit gab yi des fois day fees. ci yoon Fala njëkk nii déjà mais dama fa dem bi ma demee aussi yaay wi que vraiment en tout cas y avait man léegi mën naa ñoom rabaatu ci gab bii nii bi ma ñëwee encore gis nga. ñëw naa mu nekk euh, fonctionné wul. mis nañ ko daanaka te ce n'est pas la première fois lii de am quoi parce que non seulement metti na mais pour des fois nga ñëw surtout matinale bi affaire yooyu da nga fi fekk addina yi nit rang bi yéex des fois ñu commencé ba benn heure yi ñu ne arrêté nañ. loolu de dafa di problème boo xam ne daanaka yàgg na fii du du du tey la commencé am mais actuellement dafa gin a tar parce que depuis bi ñu ne euh, bourse yi léegi dañ ko bancariser dañ koy jox waa banque. mais dañ jàppoon ne banque yëpp lañ koy jox au minimum 3 4 cinq banques mais biñ demee lañ gis ne Ecobank kese lañ koy jox. léegi pour nga fayu sa bourse par billetage il te faut nga dem quinze heures rang da ngay dem 15 heures inscrit si liste yi pour suba laa la wax boo demee 15 heures bindu da nga ñëwaat ay minuit vérifier est-ce que sa tur nga si ba léegi toog chaque deux heures temps da nga ñëw da ngay toog ba deux heures du matin ñu def rappel. ñu dem quatre ba 4 heures du matin ñu defaat rappel ñu dem ba 7 heures ñu defaat rappel pour mën a constituer liste définitive bi est-ce donc pour nga percevoir sa 36000 wala sa 18000 da nga fay fanaan mën na am nga yenn fa mën nga am nga fanaan fa mën nga def une semaine yoo xam ne da ngay dafa fanaan doo jot sa 18000 wala sa 36000 c'est déplorable. bu ñu yóbboon tey tey ci yeneen banques yi là moom forcément moom rang bi du am. et puis coono bi tamit du am quoi. dañ ko war a libéraliser dañ ko war a dañ war a ubbi dañ a ubbi comme ça vraiment aussi yeneen yeneen yeneen institut bancaires yi aussi itam ñu mën a aussi itam ñëw maanaam bokk ci kii am concurrence tuuti boo ko defee fa lay gën a amee maanaam au moins ouverture BICIS moo ngi fi yeneen yëpp c'est accessible vu que bëri nañ fi ñu mën a collaborer ak ñooñu parce que basé aussi Ecobank kese tamit te yaak bu amee problème ñëpp lay pénaliser day metti daal buñ sañoon au minimum ñu am trois banques yoo xam ne dañuy saytu paiement wu bourse étudiants yi mais wax nañ ci waxaat waxaat mais dafa mel ni peut-être ñu xamuñu réellement lan moo lalu suuf parce que dañu jàpp ne daa loo xam ne dafa lalu suuf parce que Ecobank kese nekku fii en quelque sorte Ecobank ni mu yaatoo ñu def benn benn benn guichet bu fekkoon dañ def ay ay ay guichet yu bëri pour billetage sax on comprendre moom li ñu war a def mooy euh, libéraliser paiement paiement bancarisation bi man je me dis que c'est le gouvernement moom moo defagul li mu war a def même bu fekkee mu ngi si lancé boobu ñun dañ jàpp ne ñun pour ñun defagul li mu war a def pour étudiants yi nekk à parce que bu fekkoon ne processus création carte gab yi dafa gaaw mais bu déposé pour carte gab il te faut au minimum 3 mois pour nga mën cee jot carte gab étudiant laa la wax de il te faut au mois pour mën cee jot donc man je je je me dis que euh, ban genre bancarisation la. dañ bëgg sincèrement gars yi moom état bi ak ñi nga xam ñoom ñooy ñooy banquiers yi jéem ci andi solution ko si nga nekk étudiant war a am cours. war doxi say soxla di rendre pour xaalis loolu vraiment c'est pas intéressant euh, centre des œuvres universitaires de Dakar ak la direction des bourses amul benn rapport parce que je parle en connaissance de cause euh, direction des bourses moom tout ce qui est bourse ci kenn lay wéeru mooy ministère de l'enseignement supérieur ministère de l'enseignement supérieur moo ko jox ay directives mu mu appliqué directement mais paiement bourse ak gestion centre des œuvres universitaires de Dakar amul benn benn rapport kii li muy ñii li mu yoral mooy déjeekul li mooy suñu restauration suñu médicalisation étudiants yi en tout cas bon yenn yeneen yeneen conditions sociales sociales yi amélioré wu à l'exception euh, des bourses moom la direction direction loolu lay saytu loolu lay yor amul droit si si si liyante problème bourse ndax ke dafa autonome comme moom ni mu autonome ñëpp ministère de l'enseignement supérieur moo leen yilif